vendredi 31 janvier 2019, euh, bon, 2020, autant pour, pour, moi. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans votre émission Grand, la grande interview que ñu koy defee saa su nekk la grande interview des ñëw ak yéen si ay invités yoo xam ne dañuy wax si lépp loo xam ne rek mooy tolluwaayum réewum Sénégal si noonu rek la ñuy recevoir aujourd'hui sur le plateau de Sénégal 7 monsieur Cheikhouna Keita qui est l'ancien commissaire de police à la retraite ex-directeur de l'Octrice bonsoir euh, commissaire Keïta salaamaaleykum maaleykum salaam ma grande gis la gis j'espère que ça se passe bien ici alhamdulilah macha allah commissaire euh, j'ai envie de vous demander lan moo ñu jot euh, ñun waaye Sénégal gis nañ ñu rayante yi euh, suicide yi ak violence bi mu nekk mbir moo xam ne dañ ko dénk police si lu ma xalaat est-ce que mun nañoo wax ne fu mu toll nii la police nationale dafa am problème par rapport ak moyens yi pour gérer li nga xam ne moo nekk sécurité askan bi. police lu su fekkee dañ ko expliquer directement ci police dafa am problème ci moyens yi bon problème bi day facile réglé dañuy jël xaalis bu bari dem jënd ay moyen rek daal indi jox police mu dem situation bi gën na compliqué loolu parce que boo koy seet yow sa bopp du li nga xam ni dafa teew tey rek ñu jékki-jékki mu dal suñu kaw ay atta ngi nii tous les jours ñu ngi wax sécurité bi sécurité bi à chaque fois que mu am ay événement yu mel nii rey bi ceci cela ñu ne lan moo xew dem tuuti mu xaw tëddaa tuuti lan moo xew lan moo xew ça veut dire que am na lu topp li nga xam ni il faut ñu taxaw benn yoon règle que mooy de plus en plus suñu environnement mu ngi changer ñu ngi gën a gis bis bu nekk ñu ciy gis ay ay violence c'est-à-dire ay ay métit yuy dal ci kaw nit ñi ay nit yuy jóg jël ay gànnaay di wut alal di dal di fàq di agresser nit ñi ay nit ñuy rey ba ci biir kër yi ay nit ñuy xaru parce que dañu am ay problème loolu mooy changer ci li nga xam ni moom lañ daan gis ñaar am na ci est-ce que information bi dafa amplifié wu parce que ni médias yi taxawee actuellement yëg bi day yomb ou est-ce que réalité wu situation bi moo dikk effectivement am na lu fi xew li nga xam ni mooy sunu insécurité moi je préfère dire communication bi benn affaire la mais sécurité bi insécurité bi nan ko natt ci yëg-yëgu askan wi nit ñi nga xam ni tey effectivement ñu ngi craindre ci seen sécurité parce que bu yàgg ba léegi ñu ngi naan sécurité amu fi sécurité amu fi ba yéen ngeen naan police amul moyen wala am na moyen am na ay réponses yu ñu ci mën a apporter su avancé xëy na nañ ci waxtaan. d'accord euh, commissaire su la déggee yaa ngi wax wàllum euh, agglomération changement comportement euh, aussi euh, nit yi fu mu toll nii dañoo am yeneen regard ak ñeneen ñu gisee monde bi est-ce que kon mun nañoo jàpp ne police sénégalais d'une manière générale est-ce qu'ils étaient pré préparés aussi à ça. une police est toujours préparée à ça police ci vocation mooy mu mën lii délinquance nag situation sécuritaire day évoluer ci li nga xam ni moo koy sooke te li koy sooke lu bari la daf di nag réponse bi nga xam ni moom la ñuy xaar bu jëkk-jëkk-jëkk-jëkk mu ngi jóge toujours ci police bi mm-hmm. effectivement am na situation yu fiy am dakaar soo ko xoolee mu ngi changé changé bu gaaw àll bi boo ko xoolee mu ngi changé changé bu gaaw ndax lan ndax jamono jamono moo indi li doon lii li dëkkuwaay yi meloon ni dëkk yi meloon melatu ko lii nit ñi xam léegi xamuñu ko woon démb li nit ñi mën a gis tey gisuñu ñu ko woon démb li nit ñi mën a bugg tey gis ñu ko bugg ñu mun ñu ko woon bugg démb parce que gis ko xamuñu ko mais yi tamit tey dafa am ci ay situation yi nga xam ni boo ko xoolee xataay bi dëkkuwaay bu xat bi jaxasoo bi ci biir quartier yi ni nit ñi nga xam ne amuñu liggéey nit ñi nga xam ni dañuy dund te seen dund metti loolu yëpp dafay dajaloo ci benn place soo koy seet ci loolu dafa bokk ci li nga xam ni mooy tax ay jeunes di dugg ci situation yi xam ni mooy situation wu dem jëli alalu jàmbur ci par dal ci kaw nit jël alalam mais tamit ci sunu ay mœurs yuy changé saa sunu dundin sunu culture sociale ni muy changer ndax li ñuy dajaloo Sénégalais bi ñu doonoon africain bi ñu doonoon ak sunu mode de vie sunu dundin ak dundin yi nga xam ne de plus en plus yeneen modernité bi daf koy indi ubbeeku ubbeeku yi daf koy indi façon yi nga xam ne dañ koy jëlee ci bitim réew daf koy indi ba noppi nag bugg-bugg yi gën ci dugg ci loolu loolu yëpp day indi ay comportement yu bees nga jël beneen pan li nga xam ni tamit mu ngi jóge feneen ci li nga xam ne day yàq jikko yi muy drogue bi muy mbedd bi muy muy contamination yu bari yi nga xam ni boo nit ñi amee bu ñu amul mu ngi fii parce que yeneen réew yi nit am sax loolu dafay indi ay comportement yi nga xam ne ay déviance la loolu moo tax tey problème bi compliqué mais réponse bi toujours balaa ñuy régler loolu c'est une réponse policière police bi préparé na pour loolu danga naan kay tey effectivement délinquance bi dafa xaw am benn avance dafa xaw raw ci kanam lu tax mu raw ci kanam c'est parce que réponse yi ñu fi indi daf fi nekk ci structure am pour wuyu woon ci benn situation bi nga xam ni li nu nattoon mooy évoquer yenn stratégie yi fexe ba citoyen bi gis police gis gendarmerie am ñu koy tuddee proximité ñuy jël police yi ak gendarmerie di leen wone di leen yóbbu ba fi ñu gën a jege ci population yi mais est-ce que loolu doy na comme réponse non tey on suppose que doyul comme réponse il faut ñu xuusaat encore seetaat yeneen réponse yi xam ni dina tax nit ñi bu ñu tëddee nelaw. d'accord euh, professeur commissaire si say ay wax euh, am na benn ponk bu ma si euh, fort muy mel ni comme exode rural bi aussi da si joué parce que mun nañu wax ne fu mu toll ni ñëpp ñu ngi dawali vers les grandes villes bu ñu waxee ville sa xel dafay dem euh, comme Dakar nga xam ne fu mu toll nii mun nañu ne violence bi fii la gën a taree mu nekk mbir boo xam ne euh, dafay créer benn bomb à retardement da ngay gis ne les jeune ñu ngi euh, nelaw si pont yeeg yooyu yëpp mu nekk benn genre lii d'agression boo xam ne mun na mun na indi ay jiixi jaaxa mara détaillé mu nekk mbir boo xam ne pour man selon moi est-ce que ñoom sont pas dans euh, la police administrative parce que fii da ngay gis ne ay quartier euh, ay ay quartiers chauds yoo xam ne à Dakar euh, mun nañoo wax ne ce sont des quartiers réputés chauds dañuy gis ne les gens di dañ leen romb wala certains policiers sax ñu ngi leen di romb est-ce que police bi dinay dem à chaque fois donc vers ces jeunes euh, man naam sax fekkee nekkul pour jàpp leen mais juste pour leur montrer qu'ils sont là. waaw moo tax mu wax la ni la tout am na ay pexe yu ñu taxawaloon mm. ci jamono boobu léegi ëpp na fukki at ñu ni dañuy fexe ba police bi jege askan wi mooy notion wu police de proximité mm. loolu réaliser nañ ci lu bari mm. boo seetee dëkk bi avant Dakar commissariat central nga doon gis ay commissariat d'arrondissement boo gisee dëkk bi léegi ruq boo dugg quartier boo dugg de plus en plus yaa ngi gis ñu naan commissariat nu mu tuddati encore euh, Guédiawaye am na commissariat fii am na commissariat fële euh, euh, Rufisque am na commissariat ba ci taatu pont autoroute à péage bi ñu ngi multiplier proximité bi ça veut dire jegewaay bi ñu ngi fexe ba alkaati yi ñu leen di mën a gis mais dafa di jegewaay bi rek doyul tey dañu lu ñu war a constater mooy jegewaay bi doyul d'abord. est-ce que alkaati yi doy nañu. Mm. nous supposons que dayuñu. pourquoi parce que dañu jotoon manqué lu bare bari bari ñu ngi tab mm. déjà ci li ma dégg dégg naa ni deux mille vingt bi normalement war nañu recruter waat lu ëpp junni alkaati diggante bi recruter nañ fi junni alkaati boobu léegi ñu ngi dab li nga xam ne dafa xatoon moo tax su ñu nee par exemple alkaati yi est-ce que dañuy présent dañ naan problème bi lan la mm-hmm. est-ce que doy nañ ci nombre est-ce que doy nañ ci jumtukaay yu leen di permettre ñu déplacer wu. est-ce que doy nañ ci jege bi ñu doy mais su fekkee loolu yëpp daje na yi tamit du tere insécurité dana am parce que est-ce que ni ñu war a jaxasoo ak population bu ku nekk di jouer ba li ñu yëgandoo ñu mën ànd fajandoo ko ci boobu étape lañ toll tey il faut que ñu seetaat suñu bopp ba xam ban insécurité lañu am ak nan la ñuy ba mën ànd fajaat ko. d'accord alkaati gis nañ ne doyun euh, sell bi mooy limi alkaati gi euh, matewul ak limi nit ñi nga xam ni ñu ngi yewoo fii nii si Dakar wala sax Sénégal euh, lu wër Sénégal mais ñu seetlu ne au moment de recruter des policiers état bu Sénégal dafa choisir recruter ay ASP est-ce que recrutement ASP yooyu am na pertenance parce que ñëpp xam ne ne ASP du ñoom ñoo war a gérer seen vocation du nekk di gere sécurité te en plus ce qui est plus grave ñoom ils sont pas armés face à des bandits nga xam ne ñoom mooy loolu ils sont armés ils sont drogués waaw xam nga phénomène boobu yàgg nañ ci wax trop ni effectivement bu fekkee ni ASP réponse la pour problématique sécurité réponse bi du nem noonu mais bu fekkee nag appuyer la ci situation sécuritaire cest à leneen loo indi li nga xam ni dañ koy faa dañ koy fàkkal ay yoon yi nga xam ni dina fa mën a taxaw pour wàññi pression bi ci ñi nga xam ni ñoo yore sécurité bi waaw loolu mën na nekk loolu moo indi ñu ni ASP yi ci biir police bi am na lu ñu fa mën a liggéey mais du def liggéeyu alkaati dafay accompagner boo seetee ci yenn réew yi ay civil sax di dinañ ko def boo demee ci yenn réew yi di nga gis fi nga fi nga wax ASP yi ay association de voisins de commissariat dinañ ñëw jàpp ci liggéeyu këfin bi ASP yi kon dinañ woyefal dara mais du ñu réponse du ñu réponse pour sécurité donc li ñu li ñu fi nekkee li ñu fi ñëwee woon mooy ñu appuyer appuyer mooy su ñu amee ay convention ak police wala gendarmerie ñu am ay pàccu liggéey yi nga xam ni du liggéeyu alkaati bu diis bi ñu jox leen ko ci di nga ci gis ñu nekk ci pré réguler circulation bi taxaw ci circulation bi wàññi présence su alkaati yi jàppale leen foo doon gis juróomi alkaati xëy na di nga fa gis ñaari alkaati ak ñetti ASP ñu jàppale leen ci réguler circulation bi ci yeneen endroit yi ci biir système d'administration yi fi nga xam ne dañ fa doon téye ay professionnels yi nga xam ne loolu moo doon seen métier day gis ñu teg fa ay ASP mais loolu da nga koy def mu réglé wu normalement ba nga xam ni liñ ciy xaar dinañ ko am mais ASP du réponse réponse li mu doonoon mooy ay appui la yi nga xam ni dina indi du 109 c'est-à-dire dina indi ay nit ñi nga xam ni dinañu mën a fi nga xam ne mënu nañ fa manqué te formation bi dafay yéex dinañ mën a dajale ay nit ci conditions yi nga xam ni conditions yu yomb la ñu teg leen fa en attendant ñu mën résorber gap bi mais ASP du réponse pour problème bu sécurité